aywa euh, Oumy Samb maa ngi lay nuyu di la ziar. ma lay fay bu baax euh, soxna Daata di la delloo ziar également mm-hmm. et puis nuyu euh, sama naataangoo yi ma bokkal plateau bi et mm-hmm. puis à nos très chers téléspectateurs. Mm-hmm. tey suba soufflé nañ tuuti daa mel ni taw. dafa déedéet dafa dal. Ah. dafa dal on va retrouver une stabilité ci kanam ci fan yi di ñëw rek mais teewul ah tey suba gi ñu ngi séentu ay taw sur la quasi totalité du pays excepté Matam ay taw yoo xamante ni ci yenn gox-goxaan fu mel ni Kolda Sédhiou wala Ziguinchor toujours ñu ngi fay euh, xaarandi ay dënnu et puis pour la des températures tout au sud ñu ngi fay am 24 degrés et puis au centre foofu 25 degrés généralement mooy température bi fay nekk à l'ouest diggante Dakar ak Thiès 24 degrés et puis saint ñu nemmeeku fa température bi gën a kawe foofu ñu ngi fay séntu 27 degrés on y va dans l'après-midi toujours euh, ay taw ci moitié sud bi foofu moom nawet bi dañ koy dund bu baax a baax parce qu'il pleut tous les jours sur yi ça ne change pas ay taw yu ànd ak euh, ay dënnu si yenn gox-goxaan yi toujours et puis sur la moitié nord on va retrouver euh, de belles éclaircies euh, diggante Saint-Louis Louga ainsi que Matam yu ànd ak quelques bandes nuageuses par intermittence yu doxantu et puis diggante Diourbel Thiès et puis Dakar foofu nuage dense bi mi ngi teew c'est-à-dire qu'il y a un léger risque de mais teewul on va retrouver une stabilité moitié nord du pays euh, moitié sud bi concerné wu ko parce que comme je le dire il pleut la, il pleut tous les jours euh, euh, sur cette mhm. partie côté température la plus basse ci après-midi bi dinañ ko nemmeeku ci Dakar avec 29 degrés et puis la maximale du côté de Matam complètement au sens opposé à ñu fay xaarandi foofu 39 degrés sur la partie sud diggante 33 nañ ko am si Ziguinchor 36 degrés ci Kolda Dagana centre ci Diourbel foofu tamit ñu ngi fay xaarandi 33 degrés donc un climat euh, pluvieux sur la partie yi majoritairement euh, et puis ci après-midi bi euh, dina commencer dal on retrouve la stabilité et puis un petit peu de soleil euh, sur l'extrême nord du pays on y la prochaine dinañ ko nemmeeku ci 17h44 inchallah prochaine bu baax bi pour dem nappi ji euh, ci la première plage horaire ce sera entre 8 h étage le GPS et la petite boussole comme euh, ni ma tàmmee di ko wax chaque jour. boobu du du changé di ngeen ko dégg tous tous les jours donc pour le soleil euh, fenk na ci 6h58 le coucher à 19h17 minutes donc un climat euh, comme je viens de le dire pluvieux et puis on retrouve la stabilité dina dal fii ak suba ak fan yi di ñëw incha allah xibaar yi buur na xibaaru jaww ji on se retrouve tout à l'heure si ñaareelu pàcc incha allah à tout à l'heure incha merci beaucoup Miss Samb ba ci kanam bu soobee yàlla léegi léegi dañuy jàll ci de quoi est-il